Euh, di wax ne ñi nga xam ne dañuy faral di woo jotuñu ñoo xam ñuy seetlu wala ñuy listixaar wala ñuy dox ci lu mën di doon wala ku am aaju ju mën di doon incha allah rek bu ñu bàyyilee ci numéro 76 349 24 99 bu ñu jotu nañu bàyyil message WhatsApp ci kàttanu yàlla di leen déggante incha allah jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa wa barakaatu ñu leen nuyu baax baax di leen baal àqu ci koor gi te di leen baal waaw di leen wax ne ñu bëri nag wàllum mbind mi fan yi bu bëri doon nañ ci interpellé di ñu wax loo gis ñu yi wax dafa am la ndaw la ko waroon nañoo génn benn génn bu ndaw la moo taxoon ñu bëri sax këjoo ñoo gis wala gis yenn vidéo yi waaye du ah, mi comme niñ ko naa waxee léegi gis nañ benn senis boo xamante ni benn senis la boo xamante ni bu am lu mu bëgg la boo xamante ni bu njëkk Sénégal liñ ko xamee woon mooy senis yoo xam ne dañ daan toog mag ñi bu masaan woote masaan am xamuñu woon ay bind ji dara amutoon bu woote masaan am gone yi lañ daan ñoo daan xëy di toog rek mag ñi daan dem di woote ji mais gis nañ léegi ne affaire bi Sonko ñëwee ba léegi di gindi nit ñi doon nag bu amee nañ koo sant moom baax a baax moom Sonko te xamante ni maanaam gindi na askan bi bu baax a baax gindi na jeunesse bi wax ne neen ci réew ci ngeen bokk te yéenay ëllëgu mi te loolu nag pour mu am du doon ngay ànd di marche ak ko loolu kese yam ci mais dangay def li nga xamante ni ndax président kat wala ni ñuy falee ab tum réew kenn du ko falee ci ay coow ay moom lañu àndal moom lañu àndal joo xamante ni bu ñëwee kenn du ko wooteel kenn ëmb naa gis ñu bëri ñoo xamante ni du coor yu bëri bëri daw ñu am carte d'identité daw ñu def dara bu ko defee ñoom dañ daan ànd ci mumbaay mi rek waaw diw la ñuy topp moom lañ bëgg mais war nañ ne affaire Sonko war nañ loolu donc bi toog naan diw lañ bëgg ak diw lañ nangam de faaw dangay génn ku war a dem am carte d'identité am ko koo amagut nga dem bindu ji war a jaar fi la war a jaar loolu yëpp boo ko defee ëllëg yow di nga mën a xeex waaw kay waaye képp koo xamee nekk nga ji dund ba pare yoru carte d'identité ëllëg yow ka nga bëgg xeex muy président ba fi nekk ëllëg nga ne kooku nga fi bëgg a jëlee yow dinaa leer naa ngi boo wóotuwut say carte ci moom la jëm loolu nag moo tax tamit fan yi gis nañu tamit gaa yaa ngi ko jaayante bu baax a baax a baax xam ne ñi war a woote ñëpp ak ñi war a bindu ji ñëpp fi mu doon yi ak koor gi lu mu tar tar tar koy ñàkkante di ko def waaw kay ñu ngi koy ñàkkante di ko def bu baax a baax a baax loolu nag lu am lu am am am solo la di wax ne maa am réew noonu la président yi njëkk yi ak ñi fi daan jaar ak ñu bëri politique Sénégal léegi dafa changé bu baax a baax te loolu tamit lu metti metti nañ wax dëgg nga xam ne Sonko da cee dox rôle bu yéeme yéeme ndax ku fàttaliku rek ba ci élection yi 2019 yeeg ñu bari nuy wóoti wuñoon te ñu bëri amuñu woon ay carte d'identité amuñu woon dara ndax dañ daan topp Mumbaay mii nii rek waaw ñun diw lañu àndal diw lañu te bu woote jotee duñ woot duñ def dara léegi nag gis nañu loolu ñu ngi ci màgg ci xel bu baax a baax te xam ne am réew maanaam li koy falaate di toog di wax donc xamante ni lépp gis nañu maanaam bi koor gi tàmbalee léegi gaa koy jaayante baax a baax lu metti metti dañuy dem jaayante ji ko di wax na loolu lu am solo la na ci gaa yi gën a dox rek incha allah rabbi aw ah, koy jërëjëf. bisimilah waaw mii noonu jaaro yi nag ñu ko doon kii yi muy àndale yi nii yi mooy dañ ci biir jaaro yi nag ñi nga xamante ni jaaro yi nag moom lu yéeme yéeme loo xamante ni sallahu maanaam képp koo ñam jaaro bi di nga xamante ni du ay caaxaan jaaro bi nga sol ba mu fees lay doon ay mbir kese la nag ñi nga xamante ni. nit ñi safu ñu ne nag dañoo tëjoog yëpp lii ci jaaro bi nii da koy dindi jaaram nag jaaram neen waaw képp koo soxla dañuy fexe jote ci 76 349 24 99 jërëjëf. ah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah sëñ Diagne tey daa mel fekk na la sa bërëb moom. ah waaw lii moom xanaa. sangu falu lay don bii la ko la sangu falu waye bayra la go xamanteni ni gu ànd ubbeeku goo xamante ni ak ubbeeku kaay hmm. képp koo xamante ni hmm. yoroo kaaraange gu dëgër bu ci dug ah gis nga bo gisee ni turu turu sahaba yi ni lañ lañ ko lañ ko teje gis nga ah waaw ñeen turu saxaaba yi Ousmane Ababacar Omar Ousman Xali mi bi dal kep go xamanteni xamante dox ci falu wala hmm. kuy dox ci mbir mo bëgg am ndam waaw mi ni ah kii dafa kon sama sama mbokki commerçant yi moom yaakaar naa danañ ko itteewu bu baax baax moom ñoo ko moom far yàlla ak képp kuy dox ci bépp biir rek ah. ba man di doon pour yëngu hmm. waaw moo ko tax a jóg ah bii de moom du ma génn sa kër gi te joxoo ma ko loolu moom du ma ko xalaat moom bul wax dara bul wax dara yow soo ci noppee it doo ma ma ci kaaraange goo xamante ni si moom kaaraange yi ñu yor maam kenn yor ko ci moom waaw ah, lu ah. waaye def mu këpp ci kawam te kenn man dara kaaraange moom yi ñu ci yor maam dem si ni du ko yor ah daa mel du li may gis lépp du li may gis donc tàllal ma xool du kan mel waaw du kan mel yow xanaa bind nga ko fukki fan juróom moom bii kay ci un mois la bokk ñu ne bind un mois ah. ci la bokk ah sëñ Dame tànnal kayit yi daa mel ni yëggagul ba tey la. kayit du 4 mètres. jërëjëf.